alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifad bifurud wa sunan سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني وهذا لي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokki jullit yéen mbokki taalibe yi ñoo ngi nii ci kër sëñ Mamour Mbacke moom Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbacke fekkoon fi tey jàmbaari Serigne Touba di Cheikh Mouhamadoul Moussa Diakhaté Khadimul Khadim ñu bëggoon ko ziar bu baax nuyu ko di ko nuyu bu baax a baax ci fekk gi ñu ko fekk ci kër sëñ Mamour Mbacke sëñ ba sëñ Diakhaté ñoo ngi lay ziar bu baax. di la ndokkeel bu baax a baax ci bés bu tedd bi ci bés bu sell bi di la ziar bu baax a baax jaxate aouzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi alladi jaalana xayra ummatin oxrajat linnas wasalaatu wasalaamu ala nabiyil huda wa rahma sayidna muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahu bi sani ila yawmi din bismillahi rahmaani rahim barki cheikhul xadim jërëjëf Serigne Touba aski Serigne Touba ci Serigne Touba borom Touba mu romantewul bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk di leen ziyaare di baalu àq ñëpp ngir jëmmi Serigne Touba di ñaan yàlla suñu borom jéggal nu kenn ku nekk li ak sa borom di ko sant nag ci boole gim nu boole ak Serigne Touba moom yàlla gën koo sant ci loolu di ko ñaan itam ci kiimaanam yi muy def yàlla na ci boole yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na ko boole ci kiimaan bi yàlla na ko ci boole ci li ko neex kon nag tey jii li nga wax ginnaaw bu leen nuyoo ba noppi euh, ci teewaayu taalibe yeeg bokk yeeg ñëpp ni nga ko waxee waxtu wi gàtt na lool waaye ñii nga xam ni ñoo gën a jege sama wet nii euh, ay nit lañ yoo xam ni euh, mën nañ cosaanul kër gi lañ sëñ Ibrahima Khalilou mii nga xam ni Gallo Ka tudd. waaye nee na Serigne Cheikh moo ko tudde Ibrahima Khalilullah ca gàtteñ ca Kouré euh, mu yàgg ak moom lool Serigne Matar Seck mais naka noora bokki taalibe bi yëpp tey nag dafay bis boo xam ni liñ ciy wax du bari mooy màggal gi nga xam ni Kazu Rajab la Serigne Mamor Mbacké Falilou di doomi Serigne Fallou ak soxna bu Diakhaté nga xam ni ku ko xam ku ne walla nga jaxasoog moom ku ne xam nga ni keroog ca bis ba la ma waxoon bañ ko dencee ba noppi dama ne woon jàmbaar daanu na loolu laa waxoon jàmbar dem na yàlla nag def sunu borom jëlee ko fi ci zahir nekkatuna moom ci jëmm waaye képp koo xam ne teewe nga tey màggalu Kazu gii ren jii deux mille vingt deux fii ci Touba ci kër gii xam nga ni def lu baax rek am njëriñ ndax bu fekkoonte ni kuy seetlu la. bu doon aw nit dafa daan ñëw jàppal ni tey jii nit ñi dañoo yokk waaye wàññikuwuñu kon loolu dafa mel ni bu dee mbokk la wala kóllëre la walla taalube la comme ci mën a doon ñëw nga nga xam ni kenn ku ci nekk loolu dañ koy wax waxu ko ngir jege gum nu jege waaye lu ñu constaté la lu ñu mën a làmb daj ko la nit dina fi jóge sax ñetti weer ñeenti weer mu tiis lool nga nekk ci am lu lay jàpp waaye koo xam ne ba mu jógee léegi at mi léegi mu mat te dafa mel ni tey la fi jóge ci kenn ku nekk loolu ab liggéey dong la loxusu ko defu ko nen da koo liggéey rek dulu mu loxus loolu nag bokk yëpp daje nañ ci waaw kenn ku ci nekk ñi gën a jege kon bis bii ngeen nu fekk fii li nuy mën a yëkkati ci kàddu mooy lan waxoon ca ñaan ga bu mu fiy jógee noo ngi sant bokk yëpp yëpp yëpp yëpp waaye sant gi sant dañ ciy jiital Cheikh Mouhamadul taxa ci diggam ak Serigne Mamor ak diggam ak ginnaaw Serigne Mamor ci nim ko taxawoo ak li mu wax ci moom lépp. te nun noo fa demoon jàkkaarloog moom wax nu ko bu loolu jàll itam képp xeetu askanu sëriñtuwa Touba ñi ngi lay sant ngir sa taxawaay sa digg sëriñ Serigne góor ak jigéen mag ndaw di sant doomi cheikh yëpp taalibe yi wax noppi képp ku di tam te doon amoon kulli rek moom ñi ngi lay yëkkati suñu kàddu nun sant sant nag ci lan ci turu njaboot gi ci njiitul ab taawam sëñ Moustapha Mbacke Mamour ak yëpp góor ak jigéen mag ndaw ñi ngi sant ñëpp bokki sëñ Mamour loolu laay jiital ci wax ji ndax li ñu gis moom euh, dafa dal xel lool lool lool yàlla bu ci cat dugg rek lépp lu mu yéene woon te mu des wala njaboot gi yéene ko yàlla na yàlla def ñu mottali ko ban teg ci suñu bit ci barke boo kamilan kullama nan huwa naqsuduhu wa hablana kullama naxtaaru yàlla nun wax nañ ko duñ ko bañ a waxaat ñëpp dégg ko ni Serigne Cheikh Diakhaté ni jaay ni jaay Serigne na mu taxawee woon Serigne Mamour loolu yéen ñii seere ngeen ci na ko taxawee woon nun noo ngi am yéene ak pas-pas bu wér ci lu wér ci nun di ñaan yàlla kattanal nu ba njabootam gii mu fi bàyyi nu mën a taxawoo noonu njaboot gi noonu noo koy ñaan yàlla ngeen ñaanal nu ko lii itam li ñuy wax mooy kër gi daal màggalu Kazu Rajab gi deme na noo xam ni xëy na nit xalaatu ko woon nit sax dina xalaat ni lépp dana jag waaye ni mu demee dëgg dëgg dëgg mooy def lu baax rek moo am solo moom dem na nag li mu waroon a def lépp def na ko desewu fi dara waaye ubbi nay bunt nag samp nay nit nag yoo xam ne defar nay nit yoo xam ne mën nañ koo eggale fu kawe njort ndax nag duñ ni sëñ Mamoor def na lépp fi lay yem déedéet loolu kon day weddi tànk gi tànk kanam te sëñ Tuubaa amul tànk ginaaw tànk kanam la kon bu fekkoon def na fi téeméer it warees na ñaari junni ginnaawam loolu la ñuy mën a dégg ndax ñii fi nekk ci njabootu sëñ Tuubaa di ay ku fi ñëw tey dañ naan xool leen li mu fi def waaye kay ñëw dañ leen xool leen li mu ci dolli loolu la ñuy séntu kon nag loolu lañ yaakaar te taalibe yi pas-pas bi ñu am ak kóllëre gi ñu am ak yéene ji ñu am gëm nañ ni loolu mën naa mot mën naa sotti li am solo daal mooy Cheikh Mouhamadul Fadil mi waral guddi gi mun nu cee bañ a yëkkati kàddu mooy wax naa ko fu nekk nan xoolaat suñu bopp suñu diggante ak jom ak ngor ndaxte sëñ Tuubaa kiimaan yi ñuy wax ci moom muy julli ci géej géej bañ ko dugalee ci kaso ba te mënuñ ci moom dara yooyu yëpp kiimaan gu ne sëñ Tuubaa won nan ko kon nag léegi Cheikh Moustapha sama turandoo la mu waxoon rek lan war a def ba mu jógee ñaaxeen ñëw fekk sëriñ bi wàccub liggéey Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké di taawub sëriñ bi ñëw njaareem fekk sëriñ bi nekk ci biir néeg bi defar boppam ba noppi ba wàccub liggéey mu tiim ko néewul cey sëñ tubaab ba mu julee ci géej ga néewul cey sëñ Tuubaa jommal na Tuubaa bi daf koo tiim daal ni cey ak a gore ak a am jom ñaari baat yi rek la wax kon gor ngor ak jom ci la lépp nekk nun nag war warunoo wëlbatiku di wax kiimaan di wax ba fàtte suñu jom ak su ngor ci suñu dugg Sëñ Tuubaa jom ca ngor gi nag mooy fexe ba doon ay nit ñoo xam ni dañuy set wecc di doon jaami yàlla ku leen xool di leen xemmeem ñu xam ne noonu nooy waa kër Sëñ waaye du caagee ni luy noonu mbalit kenn ku di muur rek waroo nangu luy nuur mbalit nga bokk ci dana war a am jom am ngor ci Sëñ ni mu amee woon jom am ngor ba indi ba indi nu fii nu indi nga xam ne kenn mënu fi indi loolu la nit ñi war a xalaataan kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax waaye nag taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ñu ngi leen sant amul xaj amul seen maanaam bëgg nañ Sëriñ Tuubaa yaakaar nañ Sëriñ Tuubaa doyloo nañ ko waaye ñi ngi leen di dénk itam ñaari yëf rek loolu nit ñi dañ koo bàyyi te wax naa ko dinaa ci dikkaat ci ay waxtaan ci Saxum Touba dinaa leen ko wax mooy nañ góorgóorlu ba rik ngir yàlla yàlla ku mu bind sëñ Saliou nee na ñaari biir la la jox biir bàmmeel ak sa biiru bopp bii sa biir bii yàlla mi ko xar bind ko li ci war dina ko ci def sa biir bàmmeel bee loo fa deful doo ko fekk kon nag li am solo mooy njaboot gi ñu am di leen jur bu nu bëggee ëllëg ndam gën a am nu day Sëñ Tuubaa bëgg képp ku ci amati doom bul ci napp ba doo ko yóbbu ca daara ja mu jàngi tey it bëgg rek loo xamante ni di ma ngay jàngi mënuse ma ngay jàngi maçon ma ngay jàngi France déedéet yooyu yëpp waxuma ne bon na de waaye boo gisee tey ji yoonu murit doon sookul boo xam ne kenn mënulu ko dara yéen ñi nekk bitim réew sëñ Matar xam ngeen ko ñi jëkk a dem bitim réew indi milliard indi million tabax yi kër takki soxna ci daara yi lañ jaar am fa fanweeri at takk der muritu koo dem nag ba amul njaboot boo mënut a jël ñëppit fexeel ba say doom lenn say doom nga yóbbu leen ca daara ji ñu dem muritu ju takk der noppee bul ci xalaat dara na seeni bàyyi defoon seeni maam def ko tey ñu yor ay milliards te def fanweeri at ñeent fukki ci daara yi sëñ Tuubaa moo leen di fay kenn du liggéeyal sëñ Tuubaa di perte waaye nag bu ñu bàyyee xale yi itam jéemu ñu leen a yóbbu ñu tarbiyewu ñu leen a yóbbu ñu jàngi nap ci ñoom ñii ni français ñii ni leneen boobaa it ëllëg lii xew day xew rek te ku demit fi ngay bàyyi njaboot gi alal nag kenn amu ko alal moom ku la ni am naa ko mooy la nga ci def ci lu baax rek boo ko weddee rek te nga yor ay milliards jóge fi bàyyi fi milliards yi yenn yee soxna yaa koy jël yenn yee doom yaa koy jël yàlla na la yàlla dimbali nag bañ def ca lu baax ndax luñ ca def bu ëllëgee yaay responsable bi alal li nga ci def ci lu baax nga ci am loolu fi ñu bu ñu la noon diw sàngam bugguma tudd wenn tur milliardaire yi fi jaaroon te faatu yëpp liñ fi bàyyi moomuñu ko dara lañ ci moomul sañu ci dara ñiñ fi bàyyi donc moom kon ku am lu alal na ci def lu baax liggéeyal ci sëñ Tuubaa ci yàlla waaye nu góorgóorlu daal ci lii nga xam ne moom la yàlla taxoon bir nu nañ ci góorgóorlu bu nu bëggee dajeeg sëriñ Tuubaa bëgg sëriñ Tuubaa moom defal nañu dara defal nañu lépp waaye bu ñu ko bëggee fay nag nan fexe ba nekk ay exemple ay ñoo xam ne ku leen gis rek xemeem leen ci jaamu yàlla ci jub ci liggéey ci bëggante loolu foofu la wax ji nekk waaye bu fekkee dañu bëgg a yem ak ñëpp nag boobaa nu xam ni kon li sëñ Tuubaa doon woote noonu des nañ ko dégg noo ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan njaboot gi nii ñu toogee muy njabootu sëriñ Mamour ni ma ko waxee sëñ Moustapha di taawu sëñ Mamour ay rekkam topp ci ginnaawam déggal ko lool lépp lu mu wax ànd nañ ci moom moom itam yar nañ leen yar boo xam ne am nañ ci moom yaakaar joo xamante ne bi aw doxinam cër bu nu sëñ Mamour joxoon rek bu dee fukk def na ko téeméer ci lépp ci war ma ci lépp dara am umpunu kon nag ñun tamit noo ngi ñaan yàlla nañu yàlla dimbali man sama yéene laay wax li ma bëgg a def mënu ma ko wax waaye suñu borom kattanul ba lii ñuy yéene ci ñoom man ko eggale ci njabootu ñëpp ak njabootu taalibe yi jërë ngeen jëf wa salaamaaleykum ñu ngi leen di gërëm di sant yéen waa Saxum Touba sëriñ Cheikh Loum sëriñ Omar sëriñ Alassane Sané yéen ñëpp ñu leen sant di gërëm bàyyi wuñ kenn jërë ngeen jëf wa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulilah alkarimi silmilan alastihali bi furudin wa sunan sakartuhu liannu xad saxani li watani bi nafa ma fani wahadani